Euh, juróom ñetteelu laaj bi mooy lan moo tax murit yi di jox seen alal euh, lan moo tax daal murit yi di jox addiya waaw addiya day lu ñuy coobarewu la nga ne ki koy joxe da ko neex mu joxe ko lu am cosaan ci diine la itam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama dañ moom ci boppam digle na itam ne dee leen jokkalante ay hadiya xadis bi Buxaari net li ci eh, ci al adabul mufrad bayhaqi net li ko ci sunanil bayhaqi yonente bi wax na ne tahaadu tahaabbu am na beneen waraani net li wax ne tahaadu tazdaadu xubban nangeen ngeen di jokkalante ay hadiya ndax hadiya day dolli ak cofeel te murit bi yitteem mooy sëriñam moom bu sañoon ñëpp euh, si digganteem ak ñëpp amuk ak cofeel dox fa waaye nag sëriñam bu sañoon moom moo koy moom dana ko maanaam bëgg na sëriñam waaye bu sañoon it sëriñam gën ko bëgg ginnaaw haddiyar yi dolli ak cofeel nag loolu moo tax sëriñ si ñu leen di jox haddiya di dàkk seenu bëgg ngir seenu maanaam ñu maanaam ñu mën noo xool bëtub yërmaane ndax sëriñ si dañu am maanaam joxaan yi euh, boo nit ki nga xam ne da am ngërëmul yàlla waaw nit ki nga xam ne dafa am ngërëmul yàlla kooku boo seralee xolam mën laa ñaanal moom it ñaan ngoo xam ne wala wala mu nekk koo xam ne ñaanam daa yàlla day nangu ñaanam itam kooku it loolu lépp tax na boo seralee xolam rek wala nga jox li demoon mën naa tax mu ñaanal la mbaa mu gërëm la te loolu mën na laa jural ngërëmul yàlla yow sa bopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis yi bari na ci lool bërëb bu mu dem nit ñëw tegal koy dàllam rek mu ne allahumma irda an hada yàlla yàlla na nga gërëm ki ne irda rek foofee la yàlla daal di gërëm moom amul sikk léegi nag hadiye kon mën nga ko jox ko ne waaye yonente bi sallallahu dafa jagoo woon moom hadiye kese la daal lekk dawul lekk sarax bay imaamul bayhaqi net li na xadisu eh, bahz ibnu hakim jële ci baayam mu jële ci maamam mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko ma masaa indil aw ñam day laaj ndax lii hadiya la wala ab sarax la buñ ne hadiya la mu tam mu jëfandiku ca suñ nee ko du hadiya nag sarax la mu bàyyil ko wax loolu nekkul ci xadis ba waaye mi ngi ci beneen xadis boo xam ne ibnu saad moo ko nett ci tabaqaat tabaqaat ibnu saad moo xadisu awn ibni abdillah dafa wax ne suñ ko indilee dara day laaj ndax lii sarax la wala hadiya la bu dee hadiya mu jëfandikoo ko bu dee rek sarax nag daa ahla su waaw day woo maanaam ahlu suufa jox leen ko wala mu jox ko ñeneen rek bu dee hadiya nag moom da cay barkeelu la ci des mu jox ko wa ahlu suufa eh, mas nañ ko jox sax xéewal goo xam ni aw ñam la mel ne aw mel ne ndawal la waaye ba mu ci jëfandikoo ba noppi nag ñu doog ko xamal ne ko kat lii kat dañ ko sarxe woon bariire lañ ko sar lañ ko saraxoon soxna Aysa mu net li xad mu net li xadis bi mi ngi ci Buxaari mu saxiixu Buxaari waaye yonent bi di wax ne huwa laha sadaqa wala na hadiya ginnaaw jëfandikoo na ba noppi da sarax lay doon jom waaye man hadiya la doon ci man ndax moom du jëfandikoo sarax hadiya lay lay lay jëfandikoo loolu nag mooy cosaanu hadiya moom lu am cosaay ci diine la sëñ bi itam wax ne ab sëriñ boo bëggee mu xool bëtub yërëm bari mu wax nga jëfandikoo ak moom nga jëfandikoo ko ak moom bokk na ca wala tazal ilayhi daa ihdaai lahu bi mastataata min ataai walaw qalilan limtithaali ma warat min annahu tazidu xubba man yawad wa ma raaytahu lahu fi amri yamiilu kun li daaka daa taxarri wax ne eh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kat addiye day dolli ak cofeel te tali bi moom yitteem mooy sëriñam eh, cofeelu sëriñam sëñ bi bëgg ko ndax loolu moo moo koy jariñ léegi nag moo tax mu ne kon dee ko hëddiyaal deel wut dara di ko ko jox di hëddiya kon hëddiya dañ ci jublu rek eh, maanaam loo xam day jur ak cofeel cofeelu xol ci xolub sëriñ bi donte nag sëriñ si dëgg sëriñ si moom ku na xam ne xaddi yooyu du lu jeexital ci ñoom waaye dana xam ne ndax nit ki ginnaaw àll bu ko dee génnee di joxe rek dañ xam ne kii kon lim nekk ñor na ko ñaareel bi itam sëriñ bi dafa am fu mu féete talibe bi ndax eh, da ko féete fu bare bare ci biir diine ci jàngal ko ak yar ko ak digal ko lu baax ak moytu ko lu bon ak di ko ñaanal ak bare bari yoo xam ne da ko ci taxaw loolu itam lam koy joxaat itam loola feeñal yéene rek la ñaareel bi itam sëriñ si ñoom hadiya yi du lu ñuy dajale di ko di ko di ko denc ba ñu koy jëfandikoo ñëpp sëriñ si boo gisee liñ leen di jox di am ñeneen ñuy ñëw di leen laaj ñooñee dañ leen cay jox jumaa yi ñuy tabax Eh, daara yi nga xam ne moom lañ yor ndax seen su bëri boo gisee boo demee seen kër da nga gis ñu yor daara alxuraan jël ay jàngalekat di leen fay wala sax ñoom lu bëree bëri daal yoo xam ne ci mbiri diine la ak luy sàmm diine ji ak luy tasaare diine ji loolu it ci lañ koy delluwaat rek waaw ci lu tuuti yoo xam ne mën nañ ko ci jëfandikoo waaye du ceegeen ci loolu lañ sukkandiku kon hadiya daal gàttal gi mooy murit bi moo ko coobare woo di ko def kenn du ko ci forcé sëñ bi ci boom digli woon na ne waxoon na borom daarul muti ab lettre bu ko bindoon ne ko waxal murid ne leen bu fi kenn indi addi te amé bor daana ay nga am bor ba nopi di joxe addi waaye murid yi ñoom seenu xër mu àgg ci addi moom dañ ko def xaw a def farata ci seen bopp waaye loolu du ceegee ni sëriñ bi wala sëriñ si ñoo ko def ci ñoom farata ànd ak itam sëñ bu mag bi itam ñi ko daa jox addi gis nañ da leen daa maanaam addi ji bu dikkee ba noppi daanaka xupp la lay def waar la waar gu tàng gis nañ borom dëkk bii ma ne nii mu borom daal moo te mas na ko yónni addiye waaye da koo bind lettre boo xam ne dafa tàmbale ci wa andri naas nga xuppal nit ñi digal ko nag ay jikko yoo xam ne ko na ko jéem a lambo te fe nga nga nga nga galeen ca ñoom it ñu ñu jéem koo làmboo mooy dénkaane bi tàmbalee ci آه، أوصيك وصية تكثر العطايا لكل من يجتنب الخطايا أوصيك بالعلم وبالأعمال مع التأدب على الكمال نظف فؤادك من الأدران تكن مقدما على الأقل ذل لإخوانك للنصيحة تنجو من البغداء والفضيحة رم التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم ويدم كل ما loolu الديران gàttalug addiye daal